wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñuy seetaan ci seen seen MKTV muy Muqaddimatul Xidma TV bi seen bu Grande Mosquée de Touba ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu nuyoo jullit muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu salaam di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu mboolem jullit yëpp it di am bu baax a baax di ñëwaat ci seen émission bu am solo boobu nga xam ne euh, dañ leen koy amal weer wu jot ñaari yoon muy ñaar fukki fan ak ñett le 23 ak juróom-ñeenti fan ci weer wu nekk muy émission gàgganteku nga xam ne dañ ci dalal ay boroomi xam-xam di indi ay laaj ay fatawa yoo xam ne laaj yoo xam ne day day yitteel diine yitteel tamit suñu dunduk àddina ngir ñu man cee ubbiku mu man ñoo jariñ euh, tey jii nag niñ ko baaxoo defee ñëwaat nañ fii ci Darou Salaam Ndaam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane di borom xam-xam di mufti ngeen miin ko lool tamit ci scène bi ngir fas yéene ñëwaat ak moom ci euh, gàggantiku bu am solo tey nag xam ngeen ne émission yi yëpp ñu ngi woon ci buntu laab ni ma ko waxee di di lu yaatu loo xam ne waxtaan nañ ci tey nag dañuy ñëwaat ci ponk boo xam ne tamit mënut ñàkk ci ci jullit bi mu xam ko sàmmonte ak moom muy li ñuy wax tahaaratul xabas maanaa nga xam ne nit ki e, laabam gu aju ci e, fi fi nga xam ne fi lay defee ak jaamu ak jaamu yàllaam maanaam nan la nan la nan la war a sàmmonte ak foofu ak nu mu war a mel loolu sëriñ bi dana ciy ñëw yaatal ci e, kon sëriñ bi dañ lay jox kàddu gi nga nuyoo aousubillahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmahin sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Abdul Xaadir nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi topp ëttub xam-xam bi leen ziyaara di leen ndokkeel seeni ànd ci jataay bi incha allahu taala jërëjëf sëriñ bi kon sëñ buñ bëggoon a xam lan mooy taxaratul xabas dëgg-dëgg ci ci diine mooy mooy lan buñ ko doon tekki jërëjëf sëñ Abdul Ahad taxaratul xabas laab ci boppam boroom xam-xami fiq yi dañ koo séddale ñaari xaaj muy laabuk xadas ak laabuk xabas tey nag jotaay bi eh, noonu ko waxee laabuk xabas la xabas mooy sobe waaye liñ ci jublu mooy sobe su taq fenn doomu aadama ji buy jaamu yàlla yaram yo bu mu taq sobe yéer yi mu sol bu mu taq sobe li muy jëfandikoo ci barab jamono yi muy julli bu mu tax sol na laab ci yooyu mhm. moom lañ jubli ci taxaaratul xabas mhm. moom nag ab charte la ngir julli gi wér mhm. dañ tudde charte sixa ab jullit ngir jullee mën a wér faaw daa war a am taxaaratu alxadas waaye daa war a amit taxaaratu alxabas daa war a laab ci sobe ci yaramam ci ay yéeréem ci béréb bi mu taxaw di julli nga xam ne béréb bi nga xam ne moom la ay cëram di jëfandikoo daal da koy ëmb. bu mu waxee it euh, laabu ko yéere lim sol lépp ci lay dugg. ba ci kaala gum kaala woowu lu mu gudd gudd bay lang it waaye ci yaramu laaju ci lay dugg lépp lu mu yanu. ci kaw yére ci lay bokk musaar mu yor sax bu taqee soow mu def ko ci jibaab. ba tey dañ koy sart mu tàggali ko musaar boobu wala mu ko kon loolu la jublu ci yére. kon mm-hmm. lépp loo xam ne moom jamono yu julli. Mm-hmm. ñu ngi ko gàddu. war na cee laal mm-hmm. kon sobe yi nga xam ne xam nañ ko muy ngaan waay muy yooyu nga xam yëpp ay sobe la mm-hmm. ak deret ak euh, lu mel ne tey euh, sàngara nga xam ne mm-hmm. taq ci sobe la xeetu yooyu yëpp daal aji julli ji na ci laab ci yéreem ak ci yaramam ak ci béréb bu mu taxaw di julli fuqaay waxee tahaaratul xabas loolu lañ ci la ngir julli wér waaye na ci kaw ma zikri wal qudrati na fekk nga fàttaliku ko te man ko uh-huh. masalan tey nit ki mën naa am ay yére ay sobe ci yére mu fàttu yëgu uh-huh. wala barab bi gone gaan na fi ba boo na yëgu ko uh-huh. bu fa jullee ba sëlma julli ko baax te mu yëgu wala boog fàttewu ko xam na ne mbir mi taq na sobe waaye mel na mbir mi la amul moom dugg te amul ndox mu ko dindee ndax da ko mënta dindi moom kooku it da koy kon charte saxa la maa zikri wal xudra mm, day aju ci man gi waaw man ko te fàttaliku koo xam ne nag da koo julliwaale ba sërmal door a fàttaliku ne ah bu wi ndeke taxoon na sobee te fóotu ko wala yaramam julli ga wér na waaye sopp nañ nag mu baamu ko ndax na tuuti lu ñu bëgg ñuy wénal sopp nañ baamu ko waaye nag waxtu wa jàll na sax déedéet baamu suñu waxee sopp baamu a tax ñuy wax mm. soo waxtu waxasee jàll moom duut ak baamuwaat mm. fekkee waxtu des na sopp nañ nga baamu julli ko kon waaye julli ga wér na ko hmm. kon na fekk waa ji fàttaliku ko te man ko kon tam bu am solo si Ibnu Lahad hmm. ndax daal laal yu bari fi mu nii hmm. loo xam ne ñu ngi bàyyi xel ci misaal suñ mbokk jigéen ñi eh, dañuy boot seeni doom eh, daf ko lu ñuy tuddee couche nga xam ne gone gi mën naa def dara ci couche bi waaye du génn na xam ne loolu ku julli waale gone gu dafaru yanu nga sobe kon bu fekkee moom xam na ne gone gi defaru mu ne waaye na julli ba sal ma lekk bu jullee julli ko baax donte mi ngi ci biir kuus bi donte mi ngi ci biir kuus ndax génn na yaram wi rek hmm. kon yan na sobe mu ngi mel ne tey mu ko ci wus def ko ci jibam yan na sobe hmm. yan na sobe la ñuy hmm. sa kaala gi sax bu fekkoon gudd bay lang nga xam ne moom mën nga mën ngay sëgg sigi te kaala gi du yëngutu waaye sobe nga ca yan nga sobe ndax kaala gi di la topp foo jëm eh, loolu lépp daa mata xel bu ci desit lu mel ne tey xeeti dar yi nga xam ne ñiy jëfandikoo ay gàllaaga yooyu hmm. nañu bàyyi xel dar yi jëfandikoo da deru medd deru medd sobe la ci masab Malik sobe soo xam ne mënu su ko laabal wala kon boo ci ñaaree der takk ko di ko julliwaale yaa ngi julliwaale loolu nag gars yi moom dañuy dañuy dem rek jëndi der der der boo xam ne loolu xam naa duñ ko bàyyi xel léeg-léeg naa jëmmi jëfandikoo der rek ngay fegu loolu leneen la moom pas-pas hmm. Hmm. waaye ci fiq la ñuy wax der boo xam ne sobe medd la sobe la am na ci rab yu ñu xam fi yoo xam ne jàpp naa ne fiitu nit ak gut ci rendi ko hmm? te it duñ xam bu fekkee mën nañu bañ a fekkee fuñ koy rendee waaw kon nag nañ jàpp ne sobe yi cëpp sobe la hmm. kon loolu dina sobe la hmm. xar yoog béy sax bu lu ci xas du sobe la kon seen der sobe la yooyu nañ bàyyi xel ne lu mel noonu ku jàpp ne da koy jëfandikoo bu julli jotee da nga xam ne da nga ko war da nga war a tàggali ko moom ba yooyu yëpp mat bàyyi xel la eh, ndax yenn sobe la su ko defee nag kon jullit bi daa war a fexe ba di di moytu kem kàttanam lépp luñ ko ne day yàq jullit moytu fi ñu ko daal mooy aw daal daal la tey bu fekkoon ne da sol daal la yoo xam ne booy sujjóot mm-hmm. da nga fa bàyyi daal waxuñ daal yoo xam ne booy sujjóot daal day yëkkati ko ànd ak yow mm-hmm. waaye ram daal bu ko sobee nekkee su boobaa day yàq jullit mm-hmm. waaye bu doon nag loo xam ne tey nga mën aw carax la rek nga taxaw ci kaw carax waaye booy sujjoot da nga fay bàyyi daal kooku day mel ne tey fii sobe na fi tey nga lal lu tal ci kawam julli ci kawam dara ne ko hmm. ndax yow bi ngay julli say cër laa leen ti wutat hmm. sobe si sobe mën naa ne ci barab nga ñëw lal fa lu boo ko fa xam nga ne sobe sama ngi ci suuf dangaa taxaw waaye am na xaayil sa diggante ak sobe si am la fi nekk hmm. day mel ne dàll bi li tax ñu boo ko dee julliwaale sobe ne ci ron dàll wi nga mën ko julliwaale xaayil la ci kaw nga bañ a yanu dàll wi bu fekkee nag booy sujjóot sa tànk day yëkkatiku dàll bi jóg boobaa gàddu nga dàll yaa ngi yenn sobe loolu it mën naa bàyyi xel euh, ñu bàyyi xel ne kon julliwaal ay daal tërëwuñ ko waaye nag ñu bàyyi xel ne fii fan lañ ko tërëwut mm-hmm. waxuñ barab boo xam ne dañ ko defar ba nga xam ne buñ julli sax sol fa dàll du doon yëg mm-hmm. waaye cosaan nit ñi saxaaba yi seen jàkk amutoon luñ fay def ay xeer lay doon nga xam ne nit ñi ni ñu ñëwee doon lañ julli yëpp asalaam julli na bu yàgg mu summi dàll yi ci biir saxaaba yi daal ko gis daal di summi seen daal ñoom itam bi mu sëlmalee mu laaj leen lu tax ngeen summi seen daal ñu ne ko dañoo gis nga summi ñu summi mu ne man jëm li moom xaw na solo ci nekk ah. maanaam bu ci sobe nekkul man ne ko julliwaale waaye dab day fekk barab ba doon barab boo xam ne manis na faa soli hmm. mën na bàyyi xel du ñu wax rek ne dagan na kon fu ne nañ ko def xam nga léeg-léeg gis ci jullee néew nii ñu solaale ay dàll di di jullee néew am ñuy ñuy dal ci seen kaw ci loolu waaye ah. loolu xam nga jullee néew hmm. bu fekkee na yow xam nañ ne moom doo yëkkati sobe si danga taxaw ci kaw ñu mel ne tey fi nga taxaw nii sobe na fi nga lal fa dara teg fa ak carton taxaw ci kaw carton waaw su ko def julli wér na mhm. su ko def julli wér xam moom xam ne mhm. daal su ron dàll mën naa am sobe waaye yow taxaw ci kaw dàll yi waaye yéen woo mhm. bu doon bu def bu fekkee ne booy sujjóot fa nga bàyyi xam bu dee julli gii ni nga xam ne taxaw rek la kon dem ne loolu dara nekku ci mhm. xëy na mën naam nag barab bi ñu koy defee bu dee barab boo xam ne teewuñ fi soli dàll moom ñëpp dañ fay soli dàll su boobaa dara nekku ci nag euh, xëy na am na yoo xam ne ay aada ak i teggin la ñu ko bàyyi xel euh, na nag euh, am na lu mat a bàyyi xel it bu ñu xamee ne kon loolu mooy taxaaratu alxabas mhm. mooy ki laab ci yaram ci yéreem ñu bàyyi xel ne li laabal xabas mooy ndoxum mut la mhm. ñu bari ci nit ñi dañuy defar ab bidon wala dara rek ci wana wa hmm. ku dem ajo rek ndox mu ma nga jël ndox ma nag duñ lijjanti ba xam ma ngay nii nag ma ngay sopp ko yaa ngi koy foog ñu ngi koy sotti hmm. dalaak ginnaaw dem wana rek baax na déedéet ndox mi bu nekkul mutlaq mën naa setal sobe si waaye mënu koo laabal hmm. moo tax léeg-léeg ndoxum demoo nag gën a jafe sax ndoxum naan li nga wax nii na réew yoo xam ne dañuy daggitu bërigo wala daggitu bidon la ñuy teg ca wanag wa rek mm. tëjewut deful dara yi fii mën na faa des te daa mel ne gone dañ fay foo waaw sax yenn jooyu dara ci biir su boobaa nag dañ bàyyi xel ne ndox moom bu laabut mënta dindi sobe man naa setal sa sobe si mu set mm-hmm. waaye set ak laab bokkuñ mu mel ne saabu ndoxum saabu boo ko fóotee boo ko fóotee ba mu set set na waaye laabut mm-hmm. moo tax bu ñuy dindi sobe ci ay yére yi nañ bàyyi xel loolu man man nes naa def li gën a jàpp ni fóot kooku sa ba mu set nga xam ne léegi xokkum bi moo des léegi nag nga ko ci ndoxum mu lax jublu ca laabal ko ndax boo ko dee fóot noonu moom dong dañ ko war a fóot di fóot di tóor ba nga xam ne póoti mu mujj ma amut xeetuk sobe yorut couleur sobe yorut caf ko sobe ñu door wax ne bu muy laab na ka leeram jafe su ko defee nag boo ko féetee saabu boo xam ne jëm mi sobe nekkatu ci léegi atte ba ci des atte ba moom boo ko dugalee ci mel ndox mu kon nit mën naa def loolu ñu bàyyi xel ne daal ngir ngir ngir sobe takk ci sa yére wala ci seram wala sa jaara bi ngay jullee pour nga laabal ko doo rek jël ndox ko saabu noonu ndoxum mut lax moo koy laabal kon suñu mbokk jigéen ñi ndoxum selande mi mhm. ndox mi ñu selande bu ñuy fóot mhm. ñu bàyyi ci xel ci ne ndox mi noonu la war a mel waaw ngir ñu ne mbir mi laabal daal mhm. póotil mu juma day génn xeeñut sobe safut sobe yërul nelaw sobe waaye mu ngi taxoon deret fii petit yoo xonq hmm. mu laa bëggoon loolu jàpp naa ne am solo loo xam ne baax na ñu di ko bàyyi xel ci bu ñuy laabal euh, lu tax sobe kon ci yére ci yaram ci ci ci barab hmm. bu defee barab it ñu bàyyi ci xel ne li tax mag ñi fonkoon ay sajaada yooyu comme suñu barab yi gone dañuy dugg léeg-léeg ñu def dara kenn du ko yëg moo tax wut ab sajaada boo xam ne da nga koy waajal ngir saa bu julli jotee nga laal ko lu am solo la fu mu sëlmal la mat nga xam ne yooyu ngir jaamu yàlla gi la loolu it euh, ak fonk fonk jaamu yàlla loolu lu mat bàyyi xel la tey nag am na yoo xam ne jar na bàyyi xel nit dana julli ba mu yàgg xabas daal ko julli ga yàqu am day ni bu ñu yàgg rek gone jóge fa la ñëw colal hmm. yére yi na dagg julli ci saasa waaw loolu ilimaan moom bu ko daggee ca saasa dem mën nañoo wut ñeneen ñu àggale julli kon rotoog rotoog sobe ci kaw aji julli da ko yàq naka noonu bu ko fàttalikoon ci biir julli hmm. moom mbubb yi amoon na sobe fóotu ko mu kàbbar ba ci biir julli gi xelam ne yàlla ci ne ah moom kon ndekete amoon na sobe te fóotu ko kon day dagg julli bu fekkee ne waxtu yaatu fekkoon bu ko bu ñu koy fàttaliku bu fi daggee julli gi fóot ko xaju fi day àggale julli kon bu waxtu yaatoo da koy dagg te dem fóoti ko dégg nga <coughs> bu ko defee nag bu ñuy fóot mbubb cafka cafka la ñu wax ne kenn du ko jéggale fii ak li ngay fóot mi ngi saf sobe fóot ko di lewal ak xet ak couleur nag lañ ne bu defee jéggale ñu te leen mbubb gàkk nga fóot fóot melo bi am des mm-hmm. jeexit mm-hmm. waaye xeeñatut mm-hmm. maanaam yorutut yorutut cafka ak sobe jéggal na la ci des dafa wax ne xeetuk sobe bi bu jógee dayo ak nelaw sobe boo ca sonnee son dëñut jégal nañ la caf ko daal mooy li nga xam ne fii mi ngi saf sobe moom nga war di ko fóot loolu jar na bàyyi xel hmm. te la nga gis moom moo xam ne sobe sa da yàgg ba xaw ca am bàyyi jeexit hmm. waaye bu demee ba nga xam ne nii euh, jeexit jaa des rek waaye amul cafka gi boo jégal nañ la couleur moom mënees mënees na ko jégale waaw cafka daal la ñu jégale couleur ak xet gu goo xam ne mënuñ ko dara xet gi daa am doole nga fóot nga fóot mu muy xeeñ mhm. nga ko julli waale yàqatu boobu ñu bàyyi xel lool su ko defee bàyyi xel ne eh, xabas it sobe lañ wax am na yoo xam ne mën naa toj njàpp de waaye du sobe ngelawal ci la bokk ngelawal fii ne day toj njàpp mhm. waaye ngelaw du sobe maanaam ay nit ki ay yéreem bu ci ngelawal xeeñoon duñ ko lebal fóoti ko loolu du sobe waaye nag saa bu ngelaw génnee ci nit day jàpp xam ne nag sobe la waaye du jàpp mooy deret bu génnoon ci nit mais bu doon julli rek dex na deret jërul raxas moom waaw ngelaw du sobe hmm. jàpp rek moo tax jërul jërul laabu hmm. bu ko defee loo xam ne ci sobe si ñu wax nii dafa jafe lool nga sonn ci mënta dañ wala tàggoog moom tëla jégal hmm. lañ la jégal nañ la ko euh, ndax ak diinu yusul bokk na ci misaal yooyu dañuy wax ne euh, jigéen ju nàmpal fu mu toll gone gi def dara ci masab ma lépp gone gi li ñu def donte lekkul dugub bu gaan waaye soba la oh. waaye nag jigéen ñi dañ koy sant ak na wut am mbubb ngir julli su ko defee yooyu rek ci moom jégal nañ oh. waaye na wut moo xam ne daal saa bu julli jotee mu dem sol ko julli bu salamalee sumuwaat ndax moom gore gi bi taxool waxtu wu ñu def dara léeg-léeg waxtu wu ne muy la mu leer ko ne yére laab na da koy xaw jafe mm-hmm. waaye bu ko defee nag bu wuteem bu moo xam ne ngir julli rek la saa bu julli jotaal mu dem suñu ko dem sol ko bu sëlma lañ tegaat lay rek ci wala léeg-léeg gone ga daal ci kaw mag yooyu jégal nañ ko naka noonu ab boucher boo xam ne jaay yàpp mm-hmm. di rendi léeg-léeg dara ji di rëcc di tis mm-hmm. yooyu yooyu jég dañ koy jégale bu moom boucher jéggi bi dayo sobo dañ koy jégale ndax yooyu moytu dafa hmm. dafa jafe day jafe ci moom meewum xale da xanaa du sobe moom meew mi meew du sobe meew ci boppam du sobe lu dul lu araama lekk meewum mbaam meewum yooyu hmm. naka noonu nit ku yore hémorroïde yooyu di génn yëgal hmm. nañ ko ndax loolu mooy ci dara ne génn mu ne ko delloo loxoom wala ku yor ay góom yor ay taab yooyu di génn yëpp ay sobe lañ waaye dañ koy jéggale su fekkee ne jéggiwut dayo tax ndax yooyu diini ak diini so waaw li ko xam ne day am taab ay am dëkk ci ca génn yu sobe lañ waaye nag dañ koy jéggale ndax bu dee deret ak dëtt moom dafa am lim boo xam ne bu ci aggul rek may nañ la hmm. su boobu mën naa taq deret wala mu taq sobe eh, dëtt yooyu sobe lañ hmm. waaye bu bu yaatuwut lool doon ay tas tas yu tuuti jéggal nañ la saa bu àggee ci ñaaw ba nga xam ne ruus ngaa sol bu génn nag hmm. bëgg nañ nga dem fóoti oh, waaw bëgg nañ nga dem fóoti dégg loolu lu am solo li nga li nga ruus a génne ci nit ñi ñu koy gis daal waaw moom bu dee ay sew sew yu tuuti ci nekk masalan tey lu mel ne yooyu gis koo xam ne day tëdd ci nekk yooyu nga gis jeexi di ci boobu yi mën na si ko jooyal dara lu mu tuut tuut sobe la waaye bu bu doonee yu sew sewaan yoo xam ne tasaado boo ko dajaloon ci benn barab daal du rëy lool hmm. jégal nañ la nekk mën na ko julliwaale waaye nag bu ñaawee ba mu rus koo sol génn nag bëgg nañ mu raxase ko naka noonu nit ki bu doon dox ci mbedd mi nii bu léeg la ngay dox ci mbedd mbedd mi lu ne fay hmm. naa rawatina léeg-léeg dal la bu dal ti see rafetal njort ci ne du du fi nekk naan mu ngi xeeñ ak hmm. rafetal njort ci ne du sobe wala am yàqeen ci ne sobe ndox mu jógee ci balcon bi léeg-léeg bu dee dëkk dëkkëru jullit la hmm. jàppal ne ndox mu laaw la kenn sant la nga laaj bu seen xel nga laaj bu mel du sobee jàppal li ñu wax hmm. wala nit di julli ji xam nga oto kii ko ñu bëgg a dem di ku fóoti te te ko ba xam sobee du sobee na jàpp ne du sobee yooyu dañ koy dañ koy dañ koy jéggale naka doon ay weñ yu naaw wala ay yoo dal ci sa yére bàyyi ci ay jeexit yooyu dañ koy jéggale hmm. yooyu yëpp euh, nit ki mën nañ ko ko muy naka noonu sobe su taqoog nit am na ñoo xam dañoo wéra di hmm. waxtu wu ne deret lañ génn ci ñoom wala waxtu wu ne ngelaw lañ génn ci ñoom wala ñu ay mesure kooku dañ koy sant bu dee bu dee bu dee bu xam nga bu ngaan waay ci moom jàpp ma day toj hmm. day jàpp loolu xaalis am na léegi ci yére yi da koy julliwaat kooku la ñu bañ rek moom mu jiite ko loolu doon waaye moom nag da koy julliwaat ndax léegi ngànt la ci moom yàllaa ko na taw mu taxaw ak sobe kon mhm. sobe su tax ci yaram moom jégal nañ ko ndax mënu ci dara loolu mooy xalas mufsanka mhm. mooy ki nga xam ne daal fu mu toll xëy na day am yu génn ci moom waaw am na ñoo xam dañu dul mag wala seen i siidit am yu bàyyi mhm. waxtu ne nga waaye day toog day toog par ndànk ñii dañoo ak ñi nga xam ne masalan tey kenn daal la ñuy wax ne koo xam ne moom moo tax samp kër samp gut kër tax mos yu bari di gën waxtu wu ne ku mel noonu bu fekkee amul lu mu takk soxna loolu ngant la ci moom waaye boo mu takk soxna daa takk soxna moom ngir faju faju da koy war mu tàggoog waaye boo xamee ne ngant la sobe yi di génn lu ma doon mën naa doon mos yi mën naa doon ngaanwaay mën naa doon ngelaw ñoo dañoo feebar génn toujours ngelaw ñooñu loolu nekkatu luy toj seen jàpp waaye takk ci seen yaram baa seen yére it nekkatu luy tey ñu mën ko julliwaale waaye nag buñ jiite ku loolu dal buñ jiite ko loolu dara su ko defee. donte seen jàpp yàgg na sax. waaw dañuy bëgg na moom saa bu julli jotee ñu yeesal. Hmm. waaw saa julli jotee rek na yeesal njàpp bu yeesal ba noppi it am lu génnaat na julli. na continuer na continuer julli hmm. loolu daal mooy li nga xam ne ah, mën nañ ko tënk ci laabu xabas. Hmm. sëñ Abdou Lahad. mooy mooy lu am solo ndax ab jullit it daa war a bàyyi xel yàlla boroomam. lépp looy defal yàlla lay tax ñu nangu. jar na bàyyi xel. te julli nag mooy jaamu yàlla gën a màgg ci jaamu yàlla yi laab mooy tax ñu nangu mhm. laab charte la laab googu nag moo doon ñaari xaaj benn bi mooy xabas kon mhm. fexeel ba yow mhm. maa ngi gis ne ridwanullahi alayhim ni ñu amee solo ci seen jaamu yàlla yëpp ci ñoom mu ajjuma mbubb mu ayit mbubb mu xam ne daanaka ñaan seen jaamu yàlla dañ ko tudd mbubb saa jotee rek ñu sol ko bu buñ sërmalee suñu di dénkaane bu ñu nañ boole ci nañ ko boole ci seen i càngaay loolu seere la ci ñoom ne lii kat dañ ko doon jaamu yàlla wut wut ab sajaada wala basang daal ak jullikaay nga xam ne barab bi ci biir kër gi sax wala ci néeg bi fi mu def jullikaay duñ bëgg gone koo jaar mhm. lépp fonk jàmm rek ndax gone yi moom gone ci sobay ñëw jogge fa mhm. da nga defar foo xam ne naan fii moom jàkk la mhm. nañ fexe bu fu kenn jaar yooyu yëpp nag war nañ ci roy ci yittewu ak laab bu ko mel ne tamit li euh, wax am na solo waaye jëmmi nit ki fi muy fi muy lal di julli maanaam comme ouvrier bi nga xam ne dafa nekk ci daral gi wala mu nekk ci bergerie fu ñu defaree ay nag mm-hmm. wala mu nekk ci ci hôpital wala ci barab yi nga xam ne daal léeg-léeg dafay xaw a taq mm-hmm. te amut lum lal mm-hmm. ma maanaa maanaa sañ naa fàkk nii rek julli wala waa xam nga barab moom bu leera ne barab bi laab na ndax boo leera fii dëgg la mën nga ne ci daral ndax daral bu dee bu dee jur yi jur yi nga xam lekk leen dagan na seeni neefere du sobe kon nag yeeg xar yeeg béy du sobe mhm. kon foofu moom taxaw fenn foo xam ne leer na ne sobe néew fa nga julli fa mhm. yooyu seen nefere seen i seen kii dara du ci sobe mhm. allahuma lu ci lekk sobe ñu daal goo xam ne ci sën boobu di lekk sobe moom ay neferem sobe lay doon waaye bu loolu amul yooyu duñ sobe kon uh, jàpp naa ne it am na solo ñu mel noonu it di yóbbaale sa jaar ñu ñoroon mag ñi waaye ku ci amatul nag waaye barab ba nga taxaw bu la leeree ne sobe nekk fi rek kon nga fa jël bu fekkoon te ne suba dafaa nekk. Mhm. ñu am suuf sa. Mhm. am ko ba mu jeex waaye nga xam ne mu leer dafa nga taxawee suba nekk na. Mhm. boo amee loo ca lal carton la wala basan la wala lu ma doon mbaaj yi teg ko ca kawam ba soobee si yëngootu. nga ci kaw ñoo xam ne place bi li nga ñuy wax. nit ki mën naa taxaw ci basan yoo xam ne catul basan dee soobee nga waaye ak siwut fi mu nekk moom. waaye na fi loo xam ci kaw li mu taxaw moom bu toogee ak yu si lépp la muy moom soobee na ko nga julli baax na. ndax bëri bu aju julli mooy loolu du caagin basan yëpp waaye li nga occupé ci julli gi moom la ñuy xool moom la ñuy xool mm-hmm. léeg-léeg fu mel ne hôtel yi ak aéroport yi ak yenn kii da ngay gis ne day am ay tappe yu rafet mm-hmm. waaye dangay xam ne nit ñi dañ fay jaar ak seeni dal ah, moo tax nit mën naa mën naa julli noonu rek waaw yi gën nag dem ci hôtel moom mm-hmm. wutal sa jaada ni nga bàyyee xel say yére ak say bagage na ci sa jaada boobu ndax moom ña fay dem duñu jëpp duñu julli ñaan nañu duñ moytu sol dañuy wax sax ne sol mbubbum koo xam ne du moytu sobe mhm. dañuy tere nga di ko sol di julli waaye boo xam daal yoon lu ci mhm. amoon boo fekkoon boobu mu wétte boo julli bu ko sol ndax ndax sobe ñu ñëru kon barab yi nga xam ne nit ñi dañ koy fréquenté ñoom sobe ñëru leen loolu lañ mën a def ci kii duñ laabu ñaare faale wuñ daal dañuy gis ne moom karaw yi day set wicc waaye dëgërul xam waaye barab yooyu moom mhm. la gën mooy nga lal yóbbu sa sa jàll ndax mën naa set waaye du laab ndax bu fa sobe xasee taq ñaare bu ñu koy sotal ndoxum saabu lañ koy sotale kon set na waaye laab mhm. tax yu mel noonu yóbbaale bara yu mel noonu ñu am yitte nga xam ne yóbbu seeni sajaada fu ñuy jule lal ni ñuy amee euh, bursala bu lay woon xibla mhm. yooyu ko bokk na ci lu am solo masha Allah masha Allah jërëjëf sëriñ bu mel ne am na solo lool euh, tolloo naag waxtu wi tamit euh, jeex xam naa kon dañ dañ lay jox nga nga yu mujj waaw ah, kay jërëjëf di sant mbokk yi di wax ne jataay yi nga xam ne jataay jàngale la mhm. dañ ci jàng jéem a jàngalante kon fexe ba eh, nit ki lu am xamut ci diine mu laaj ko mhm. laaj bu ci ñëw it incha allahu taala ci jotaay yi ñëw bokk yi dañ koy tontu mhm. kon eh, di ko topp am na njëriñ ndax nit ki daa war a jóg di sàkku ci xam-xam ndax farat la ci moom li ci faraay du aan la bokk mhm. kon boo amee ëttu xam-xam bu la koy laabiré li la fekk fi nga nekk jaar na topp jaar na di bàyyi xel mbokk yi ñaan yàlla daf ci tawfeex def ci barke nangu liggéey bi ñu am ci ngërëm jërëjëf barakallahu fiika wa ataala allahu baqaak euh, li ñuy wax am na solo lool euh, émission gàggantiku émission bu am solo la maanaam li ñuy wax bu am audience la ci sunu mbokki jullit yi ak sunu mbokki taalibe yi nekk biir réew mi ak bitim réew ñu ngi koy topp bu baax a baax a baax ngir leeral yu am solo yi ci nekk kon mbokk yi ñu doon seetaan foofu la ñuy yamale tey seen émission gàggantiku tey jii ñu doon waxtaan ci taxaaratul xabas dégg ngeen ni ko sëriñ Mbàkke Abdourahmane leerale muy lu am solo loo xam ne yaakaar naa ne ñun ñëpp buñ ko dégloo seetantal ko danañ ci jariñu kon ñu ngi leen di nuyu di nuyu sëñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne moom lañ àndaloon ci mu doon jël euh, liggéey bi di leen sant di leen gërëm di leen dox di leen dig daje ci beneen émission gàggantiku asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh واجعله مسكن li من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم